de réalisation d'infrastructures sportives euh, maire de Dakar donc effectué le fils aîné du défunt général des Layènes mi ngi exercer Barthélémy Dias pour mutualiser ses efforts dem djubok euh, le régime actuel ñu war a exactement pour ça part Barthélémy Dias tente de reconnaître mi ngi ba dynamique bi dans le travailler exactement avec le président ba sax devoir moné nekkoon bindal ko correspondance euh, pour bien science waxtaane exactement les problématiques de la ville alors euh, li kilifa gi ça exactement si Barthélémy Diaz, Barthélémy mi ngi si correspondance yi nga xam que moo di nguur gi ana ban jàng si def concrètement Barthélémy je vais vous la waxoon fii rek laa lay aujourd'hui dafa yor une très grande mairie la mairie de Dakar Barth ne peut pas réussir sa sa mission sans une collaboration avec l'État du Sénégal hmm. maintenant l'État du Sénégal aussi si ni muy doxal certainement il a besoin de la mairie de Dakar. Parce que nous, à un certain moment, il faut que nous travaillions de manière mutuelle. Hmm. Je pense que c'est important. À hmm. un moment nous xam bu ci tollé, dañu les querelles politiques double su liggéey le Diaz a un budget des milliards il a des projets pour la ville de Dakar te il y a un projet il faudra véritablement euh, que l'État du Sénégal accompagne ko. Mm. il sort day dem ci réunion yu gëna mag ci aduna bi. Mm. day am ay convention avec contrat mais amna lo xam il faut que état Sénégal approuve. Mm. ko and ci ak mom mm. je Alors, pense que ce moment-ci c'est pas le moment de de de. mais euh, lan ngay xaar en en terme de réponse si Sonko ak Diomaye exactement. waaw mais dañ ko wara xam na na la yag rek wala mu yéex mais dinañ ko recevoir. waaw dinañ ko recevoir. tollagul waxtu waxtu waxtu wi. wa ragal naa dinañ ko recevoir xawma nak mën na baña yag sax mais dinañ ko recevoir. mais son absence mais loolu mooy yoon aussi. mais son absence si seetatal euh, bi tamit ñu bari ñaaw lu neen ko parce que gis neen maire maire maire maire yu bëri génn ñoom Ahmed Aïdara ak Pikine ak Guédiawaye ak na Massar yépp lu toll ni euh, le premier euh, premier capital bu Dakar gennu exactement. sëriñ wa loolu yëpp position politique la. xam nga hmm. man nekkuma woon analyse politique. kooku c'était une position politique. mais hmm. japp naa ne li gënoon jaadu aussi en tant que maire d'une très grande ville bu doon ne mi ngi fi nak la wax hein, mi ngi fi. mais mu yable ça dit dire na mën a génn. yaa de may ci maire wa wa si si waroon na mën a def un geste symbolique lolou yakalu ko dara parce que aujourd'hui y a des maires yu nga xamanteni ni APR coalition Benno la ñu génne te pourtant na nañ. Hmm. wane sen acte de citoyenneté parce que cet setal bobu président mom ko Sonko moomu ko et cela ne veut pas dire que da ngay ñeu participer cela va va va contribuer au bilan du du président non il faut qu'on dépasse véritablement ces genres de philosophie là c'est un état d'esprit bu ñu un acte de citoyenneté civisme et que je pense que c'est ñëpp a ko bëgg faire. Hmm. donc cette amul parti politique amul dara am un loo xam bu ñu ko woowee da nga war a jël say position partisane tegi ko véritablement la cause principale et je pense que euh, lu doon na jaadu si véritablement la disponibilité doon ko ko permettre bu ñewul itam comme li nga wax deug la certes. Hmm. mu yonne ñu xamni la mairie de Dakar avait a fait véritablement un geste. quelque chose un geste symbolique. loolu je pense que c'est important. ok euh, on se quitte avec les infos justement du tribunal tey euh, Gueye mandat de dépôt waaye itam euh, Imam Ndaw ak ki nga xam nek modi ba Bah ku nek trois mois de prison ferme ak 100000 francs d'amende euh, concrètement ban analyse nga da def par rapport aujourd'hui ces infos du tribunal waaw xam nga tribunal euh, mm-hmm. ñu bëree bëri ñu ngi wax sax naan lañ doon xaar si euh, ci affaire xawma une personnalité exerçant une partie des prérogatives du président de la république loolu mm-hmm. lañ doon xaar ba évoqué mm-hmm. woon certains certains certains articles dem ba ay sax ba trois ans mais finalement gis nga fu mu mujj o oh, lii euh, la lañ kii sax trois mois non non kii bi kii bi waaye duñ tuddati euh, nu trois mois ils ont été reconnus coupables justement euh, euh, de diffamation de fausse nouvelle. diffusion de fausse nouvelle voilà Mon boobu laa pertoon. Mm. xam nga finalement le la juge peut retenir. Mm. maintenant le juge est un praticien de droit. Hmm? il a apprécié véritablement la situation et il na ni nécessairement li mo wara tagu ci kawam parce que même affaire Ousmane Sonko dit ça gis nga ñun pas affaire viol lañ xaar mais finalement corruption à jeunesse lañu andi. kon nga xam ni juge bi à un certain moment moom mooy xool nu muy qualifier bah, la qualification des faits. waaw moom hmm. mooy xool nous muy qualifier mbir mi. le na dans un premier dese nañ ay voies de recours. mën nañ ko hmm. utiliser. Hmm. parce que première instance bi m'ont àtte dans une seconde instance avec ba de ñuy dem fi nga xam fa lañ war mais li am ba am tribunal bi weddi na Bah Diakhaté war na ko ni li nga wax amut. dans un premier temps mais des na. des na parce que mën nañ attaquer décision bi ci seconde instance mais l'avenir nous dira. Inch'Allah. L'avenir nous dira exactement par rapport à euh, ce qui va se passer dans l'affaire Baïtiarate avec euh, Kina Khamdek Mori, justement. Euh... Allez, Doragay. Allez, non, c'est 30 secondes. Mandat de ah. dépôt. Serine. ah mm. mais euh, sonte euh, Zikroullah saw bëggoon na ko bëggoon d' na pour ñu waxtaanee mbir yi mu delloo ko xaalisam mais procureur de ces dafa ne ñett par rapport ak wàllu wu nu mel. en tout cas daal que justice soit faite. femme mm, man loolu mm, laa gëm. man damaa jàpp ni réew mi waruñu ko woon waruñu ko bàyyi ci ni muy doxee. ñii di am ñii di ñàkk. tu as te ñii am ñu bëree bëree fañ ko teg mooy si jubati. ok tu as mënuñu la jàpp. nga nan ay mission secrète la do dox président moo jox li ay mission secrète ken xamul lan lan moy mission secrète yu mu dox. secret moom tëj na tëj na lépp du ko wax kenn. du ko wax kenn léegi que soit fait. que justice soit faite tey yakarni. naa ni. Hmm. justice dana def liggéeyam parce que xamul daal fee yii ma jot gis ni ak yi jot am buñu nexal kenn nañu dem de manière indépendante et transparente sans parti prise. Hmm. ku jël alalu réew mi bu ñu demee ba def ay gëstu ba jàpp la nañ la tëj est-ce que dégg wala ñu wut yeneen kii alternative mais ce qui est sûr mooy sénégalais yi bëgg nañ xam seen alal fu mu dugg. fu mu génn parce que dëkk bi. Hmm. dafa métti te gars yi ñu ngi bëgg a wàññi ceeb beeg diwlin beeg yooyu yëpp. te xaalis bi yëpp la dugaat xaalis baa ngi ci nit ñi ne woon naa la keroog fii dëkk boo dem gis fa ndóol gu metti fàllu gis fa ñàkk gu métti jàppal ni ñetti nit ñeenti ñoo yor koom-koomu dëkk ba. li war a génnee suñu presse bi kay. xanaa seen poche. li war a war a suñu presse bi kay xanaa mun na. <laughs> quarante milliards yi xanaa mun na <laughs> faj lu bëri sëriñ jaajëfal ne la jaajëfal ne la bu baax a baax ba di la jaajëfal waxtaan wi amoon na solo daa nga tàggatoo waaw mm. kontaan naa di la di la di la di la di la ziar madame mu ngi ci biti hmm. duñu xaar Bah, alors donc li beneen la exactement merci beaucoup Serigne di la jaajëfal alors donc on se quitte avec ben programme bu bees bi nga xam ne euh, ni à la demande générale tous les vendredis les di nga ko retrouver exactement. Hmm? Hmm? allez jox ñu suñu affiche. ah Ali mooy wax ak yow di la tooy. Hmm? Ali Ali ci man la alors. <laughs> alors Ali jox ñu affiche exactement. your fii your fii yor fii ci côté yëpp leer euh, alors moi, je suis donc euh, à la demande générale en hein, mi une nous émission li nga xam face à la rédaction de Sénégal 5 alors sur Sénégal 5 nak euh, liko am bari na am Sénégal 5 TV Sénégal 5.com et tant d'autres d'autres donc nak tous les vendredis nous dal ben invité koo xam sera un invité de renom waxtaan ak mom si nga xam nek modi ay actualité si nu gën exactement alors en ce vendredi di ngeen am premier numéro bi nak ki nga xam nek